loolu nax na Wade nax na Macky Sall te ñii war nañu góor góorgóorlu. ba bañ a tomber dans ce piège la. am naa xam nañ en réalité. oui mais lii graaw. Mhm. mooy des fois mën ngaa xam ba pare sëgg ci li nga xam parce que pouvoir dafay lëndëmal ak gis. ça rend fou. ça rend fou. il faut que nit ñi tey tey Karim su ma doon yéeg su ma doon yéeg Ndiaga Ndiaye yeewu suba ñu daaj ma 4-4 tout de suite mus naa man mus naa am exemple bi mus naa am 4-4 ay côté 2005 yooyu quoi benn jour ma yéeg rek teg nii sama loxo oto bi chauffeur bi di dawal quoi ma def mi ma jékki-jékki rek mel ne lu ma la loxo bi wàcc yaa ngi ngand ngandu la. mos a am 4-4 quoi. oui oui. mais doo ko tey. parce que nit bakkanam nit ak bakkan c'est-à-dire benn tubaab dafa ne le privilège nous éloigne de la réalité. boo amoon léegi léegi di dawal 4x4 climatisé am garde am euh, am sa kër benn cuisinier buy togg sa jabar du laal dara boo da ngay gis affaires yi kii et cetera et cetera am ay peignoir yu weex bëri karaw nii nga koy sango <laughs> mais lu ba y des informations qui t'échapperont. dëgg la. il faut beaucoup faire attention il faut garde la ligne. garder la ligne ah Malal foofu la ma fay teg sa loxo garder la ligne ama sànq da am da nga am foofu duggoon ñu daanelee foofu euh, si car rapide par exemple. oui Malal est-ce que car rapide ba léegi nii am na loo xam ni da ngay ñëw taxaw ne apprenti bi mais man yor passe quoi mën na la jàppal ci marche bi. waaw. est-ce yi dañuy fàtte yooyu. te ñun ñëpp jaar nañ mais mais. moto boo man xam nga ban 1900 la. mais Karim man xam nga mais loolu noonu. mais mais Karim man. très très important. mais man damay ñëw léegi léegi. jóge ci bureau benn ministre. Mhm. wala amba am rendez-vous ak ambassadeur États-Unis wala France toog waxtaan sur des questions très sérieuses mhm. ma dem Géejawaay di waxtaan. jékki-jékki benn booy na ma waaye doo cottu ndeyem. non xoola. baal ma baal ma mais saaga diine terewu quoi dafa araam ah. waaw teyuma ko asafurla waaw asafurla asafurla waaw non teyuma ko non dama ko waxee noonu c'est pas dans le sens violent du terme quoi. waaye bi naan waaye yow waaye doo nangam waaye doo tus. buñ ne nii ngay jaayee affaire doo dara. gis nga ñaari extrémité yooyu ah, quoi mais loolu dina la dimbali. mais loolu mais mais mais loolu laa la bëgg a wax loolu la loolu laa la bëgg a wax di jege di jege ci nekk si loolu tax nga xam ne nga delluwaat quoi c'est-à-dire xam nga rien que rien que nga am possibilité xam nga boo amee 4 kaat am garde du corps mm-hmm. pour ku am ordonnance jege la day jafe de mais malal si contexte bi ngay waxee nii est-ce que kon internet nekkul tamit loo xam dina dimbali gars yi par exemple benn Karim su jàppee ni moom am privilège yi du gis yenn affaires yi par rapport ak euh, internet muy gis ay clash wala mu gis loo xam da koy que kon internet. mooy mais mooy président bu ne. au-delà de ses conseils. Mhm. internet mooy conseil. au-delà de ses renseignements généraux war na moom di jël sur lui-même la liberté. di lire di lire ay commentaires. di ba pare di gëstu nit ñi xam nga. kenn munul na Karim Xurum Xaq kenn xamu ko mhm. man su ma doon président chaque jour bu ma gisee sa émission damay dem déglu ji ko chaque jour damay déglu jàkkaarloo non parce que damay bëgg dégg li dëggi-dëggi askan wi xalaat parce que ñi ma faral jàpp naa ni waruma leen déglu parce que dañuy wax toujours lu baax li ma def quoi parce que dañ may bëgg a soutenir ils le font de bonne foi et puis ça c'est vraiment bien de le faire mm. parce que aussi boo faralee nit il faut l'accompagner il faut pas aussi ngeen fal nit bàyyi gars yi di ko saax-saaxe ah, mais bul topp ñi lay faral trop loolu mooy indi politicien di dem di ger nit pour mu bàyyi di ko waxal lu xaman loo xamante ne du ko arranger li tax politicien di ger nit mooy toujours. day bëgg di dégg rek. waaw gis nga booy jiite ñaanal yàlla di dégg lu la neex ak lu la naqari. et puis même privilégié di dégg li nga xamante ne. ñi lay critiquer. il faut prendre ceux qui te critiquent comme tes meilleurs amis. ok mais gars wax naan par exemple euh, sooy critiquer président nii est ce que doo ko critiquer est ce que comme par exemple nga am accès si est ce que doo woo malal est ce que war nga toog si média bi di wax loo xamante xam nga euh, hors antenne. gis président wala nga fexe. oui mais bu fekkee. wa non man man d' accord naa parce que par exemple bu fekkee am nga possibilité. Mm-hmm. jot ci moom. jot ci moom. si mieux nga wax ko. waaye je waaye je préfère waaw loolu moom jàpp naa ni. dëgg léegi su fekkee par exemple yow ki ah, yow tu existais bien avant loolu. bopp. waaw am sa idéologie bopp. am say principe bopp. oui est ce nga seer sa bopp ci jëm que par bu fekkee ni président bu fekkee malal mais bu fekkee da ngeen a góorgóorlu ba établir une relation. parce que bu fekkee am ngeen votre relation existe seq ngeen di gise mhm. seq ngeen ngeen mën a wax mhm. ah bu defee lu jubul mais nga wax ko ko ci ah, suuf mais soo toogee di gis muy def loo xam tàgguwu la nag def ko defaat ko defaat ko. oui mais mais est-ce que tu vas continuer à. mais non non non non non mais président aussi dañ koy nangul dayoom parce que président munul. lu muy def mu tàggoo. mun lu muy def mu tàggoo. d'accord parce que mooy président. ok loolu aussi cër la bu nit mën a may président man bi dëkk bi di tàng trop man est que tu sais que j'ai jamais rencontré Macky seul tête à tête. ah musul am musuma am man Malal Talla audience toog ak Macky Sall man kese dem naa fa ci rencontre bi ma la wax ak ñoom Youssou Ndour mhm. di wax waxu 2017. dem naa fa 2012 man ak waa Y'en a marre man ak noyau dur Y'en a marre mhm. demaat naa fa si temps Covid bi. Mhm. demaat naa fa ci benn rencontre bu mu am avec les hip-hopeurs ci benn weeru koor. mais les l'ai jamais rencontré seul. et à chaque fois que j'ai voulu transmettre un message à Macky je suis su ma waxee yenn yi nga xamante ne rus naa ko wax jàkkaarloo yi may rus a wax jàkkaarloo. Mhm, da dem naa wax ko ay nit yoo xamante ne mën nañ ko ko wax directement mais bi ma seetloo ni nit ñooñu duñ ko ko yegge bind naa ko mail na ko dëkk bi situation bii la toll lii ak lii nga war a des mais musuma tontu yow loolu yëpp def nga ko quoi cest message est-ce que nga wax wax Macky Sall mus naa ko ne Monsieur le Président, la situation du pays est très tendue. Et je voudrais vous rencontrer pour discuter avec vous sur ce qui se passe. Manako, euh, le contenu de notre discussion, je ne peux pas le dire dans ce mail, je voudrais vous le dire en face. ma répété le même mail trois fois. mais musu am rëbb. musuma tontu. xëy na est-ce que du sax loolu moo tax mu nommé ma conseil économique social et environnemental peut-être. ok peut-être. loolu tu as plusieurs fois j'ai je suis passé laaj naa ko audience personnel mu nangul ma ko ñu wax téléphone ñu paas ma ko allô mu ne ma miñam il me dit petit frère. Mm-hmm. parce que c'est comme ça qu'il m'appelle c'est normal. Mm-hmm. parce que moom su may grand frère ay xarit lañ. Mm-hmm. mënuma ci dara sama maam Macky Sall Macky Gassama lañ ko tuddee. ok miñam ne ko mbir yii di njiidan bëgg naa ñu gise mu ne ma njiidan pale ma ne ko non mi yi daa pale njiidan gàlle ma ne ñu gisee sa kër. après mu ne ma guddi lay doon ma ne ko d'accord ñu teg ci quelques ñu teg ci quelques jours avant ñu war a daje. Mhm. ma am sama gis-gis ci démocratie wax ko finalement audience boobu mujjul am. pour wax la ngay xoolee boobu homme yoo xam ne dañu jàpp ne yow waxee sa xalaat rek yow ci la ci loolu mais loolu c'est des. li ñuy bañ expression bi ñu bañ ci liberté d'expression bi. mais mais non wax sa xalaat ñu jàppale mais saa yaa ko moomal sa bopp bul may. oui yaa ko moomal sa bopp. non bul nangu ku la tënk il faut toujours dire dire ce que tu penses parce que les commentaires les gens mais. seen la ñuy wax mais mais am nañu d'accord mais ku d'accord am nañu d'accordul ak yàlla te yàllaa leen sàkk. Malal émission mi ngi jeex. oui dama may yu ma duggoon laaj ci actualité bi. oui maanaam ni ngay gisee coow li actuellement am coow lu bari lu xew Sénégal actuellement si euh, un membre du gouvernement ñu koy wax. professeur Cheikh Oumar Diagne. waaw euh, mu am coow lu mu am nag euh, par rapport ak euh, je pense que yënga actualité bi li xewoon ci tarixa yi et parce que dafa amoon passé boo xam ne amoon na aussi ay xëccoo yu gars yi doon wax ñu joroon am am lu xew moom bu nee ba lim gère ci bi xam nañ ko ak demande bi waa Touba defoon ci màggal gi et bu ñu ne état ñu ne Sénégal da ko ak lettre bi mu bindee di tout mu indi coow. Malal ban jàngat nga am si lool tey boo doon boo si doon wax may may laaj sa xalaat. te fekkoon am na looy conseil peut-être di ko wax benn d'abord mooy Cheikh Omar Diagne benn bi nga wax ko gouvernement du Sénégal parce que du ma ne Cheikh Omar na loolu benn bi nga wax ko les yi nga xam ne ñoom ñu ngi acharné peut-être du ma ne ñi ngi gis nii waa ji maam ku leen ñuy xeex la xam euh, ak taxawaay quoi yi nga xam ne moom Sénégal beneen bi aussi nga wax ko le peuple bi nga xamante ni ñoom ñi ngi si ñi ngi si ñi ngi toog bëgg xam wala peut-être ils sont pas xam ne ñi xamuñu. li may wax en tant que fumanal. li sa xam-xam sa li may li may li may njëkkee mooy di wax ni d'abord Cheikh Oumar Diagne du nit bu ma miin man personnellement mais yàlla dimbale na ma bi mu nekkee ci nattu nekk kaso dem naa seeti ko seeti waale la parce que seeti boobu. yow bi ma lay seeti sax seeti surprise la la def parce que ah, boobu fekkul suñu diggante neex mhm. mais li tax ma def ko dama toog sa jàpp boobu def ma metti dama toog yéeg ni jàpp nañ la affaire mu mel ni man la ko affaire metti ma quoi ma ne mais finalement Karim il passe toute sa vie en prison mais lii war na metti quoi xaaral ma wut permis pour aller le soulager. ma wax ko Alioune Sané Alioune Sané ne ma nañ àndaale ma ne ko nañ ci boole Cheikh Oumar Ndiaye. Mhm. ñu dem seeti la. boobu laa ko mës a gis. Mhm. waxtaan ak moom. après je pense que je une fois parlé au téléphone suma ma juumul mos nañu wax benn yoon yàgg na ko ah li am sur euh, l'affaire de Touba. lii li ñu wax ne Cheikh Omar Diagne wax na ko. ñii nee nañ wax bi paase na weesu na dañ ko rattaché ak contexte par rapport à une ki a été écrite et cetera et cetera lenn rek laa ciy wax fii tarixa yi dañ fi am rôle bu am solo rôle bu am solo mu nekk ñu leen di woowee ñu ñëpp ñu bëri di leen di woowee des amortisseurs de la tension